ci yonent bi sallallahu taala alayhi di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbakke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te wér waaye di ñaanal jawriñam ci sëriñ Sidi Abdoul Ahad yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal la président comité de organisation bi muy porte parole Cheikh Bassirou Mbakke bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak di ko ñaanal yàlla ko yàlla dolli xel ba mu àggale liggéeyam waaye di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom la yebalan fii ñu teew fii tey yàlla dogal di bis bi njëkk ci réunion boo xam ne monsieur le sous-préfet Mansour Fall moo ko convoqué pour première réunion bi nga xam ne moom la ñu waajale 18 safar ci atum 2018 te Serigne Ousmane Mbacké coordonnateur teewoon fii ànd ak Cheikh Abdou Mbacké Darou Rahman ak Serigne Moustapha Moussa ak membre yi organisation bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci màggalu Touba ñu ànd ko ak commune Touba ànd ko ak chef service yi nga xam ne teewoon nañ fi yépp ci njiital sous ak chef du village fi teew ak ñi nga taalibe yi bokki taalibe yi fi teew yëpp ak presse bi kenn ku nekk ñu fàttali lan lañu defoon daaw fan la ñu jaaroon daaw ren yan disposition la ñu war a jël yan matuwaay lañu ñu war a jël ba am màggal bu mucc ayib boo xam ne jafe-jafe yu bare bari yoo xam ne amoon na ci danañu seet nan lañ koy fexe ba loolu du am engagement yi nga xam ne rek moom la ci commune bi di jël ci wàllu assainissement nga xam ne mooy wàllu cet gi ci dëkk bi la ñuy njëkkee def benn opération war ko ànd ak euh, comité d'organisation bi te Serigne Cheikh Abdou Latif jiite ko muy war moo yor euh, commission bi nga xam ne mooy assainissement ci comité d'organisation màggal gi danañu ko ànd ak moom ci nettoyer dëkk bi ba mu set li ci topp mooy ñu ànd ak waa santé ci jàppale leen ci collaboration bi nga xam ne war nañu ci jëflante ak ñoom ci lépp loo xam ne wàllu commune bi la muy pompe kër yi ba mu set ak service des jeunes waaye vider si wanag yi nga xam ne nii ñoom la ñuy war a vider pour waajale ko màggal gi ak bépp service boo xam ne sécurité ñu ànd ak ñoom ci ñu gën a saytu sécurité dëkk bi ci way ñaawteef yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu fexe ba nettoyé ko opération yi ba mu set waaye nag ñu aussi ànd ak ñoom ci comité de organisation bi ak comité de organisation bi ci autorité yi police ak gendarmerie ak GMI yi ba nga ci plan de circulation bi ba lépp tegu ci yoon loolu daal mooy li nga xam ne mooy tey lii monsieur le sous-préfet Mansour Fall comme ke woon CLD bi Mansour Diallo donc comme kon tey réunion bi ngir ka ñu waajal màggal gi di ñaanal sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp yoonu murit te lii di première màggalam bi nga xam ne moom la fas yéene màggal ci amee 2018 bi ci bopp xilaafa gi yàlla na ko yàlla may kattan ak wér ak fan ba ñu màggal ko ci dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ak alhamdulilahi rabil alamin te taal bi am ci ngërëmal sëriñ Tuubaa ñoo ngi sant mbooleem ko fi teewoon te nga xam ne dangaa participé yoon ci réunion bi waaye di sant presse bi nga xam ne bi ñu ko tàmbalee nii ba keroog buy cérémonie bay jeex yéen lañ koy àndal kenn fu ñu taxaw ngeen taxaw fa lu xew ngeen wax ko di ànd ak ñun ci liggéey bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm collaborateurs yi nga xam ne ñoom la àndaloon ak conseil municipal yi teewoon fii yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sant yàlla dafa mel ni que lu ñu fi dajale woon depuis suba ba tey ah euh, mën nañu wax ni wax bi frenkulaayu na ndaxte CLD bi nu ma koy waxoon si njalbeen moom mooy fondement bi ñun ñi ñun ñooy njëkk a def CLD grand magal bi si CLD boobu la ñuy organiser CDD le préfet et le aussi si lay organiser après CRD jëm ba au niveau national avec le ministre de l'Intérieur donc lu ñu fi taataan tey si ak bi weesu si màggal bi pour ko mu gën a baax taataan nañ ko ak comité d'organisation bi taataan nañ ko ak service technique yi fi nekk yi ak yéen lépp ak fas yéene rek def màggal bi nga xamante ni bi daal ñu ngi yaakaar ni daal am mbébét yàlla dina ci jàppale ba Euh, dina mën a euh, yëpp dina mën a euh, matale ba doomu aadama yi jullit yi ñëw fi yëpp bépp taalibe murit ak bépp taalibe yeneen tarixa yi ñëw yi fi yëpp yàlla def daal ñu def nàggal bi nga xamee ne bi daal dina nekk màggal bu neex bu am jàmm ak salaam rahman ak rahim ñu ngi donc sant yàlla donc si li mu ñu mayee tey ñu toog ba liggéey loolu yëpp ba mu sotti ba ñu fas ko yéene clôturer donc euh, ñu ngi gërëm ñëpp ñi fi teew ñëpp service technique yi membre du comité d' organisation à commencer surtout par Serigne Cheikh Ousmane Mbacké di leen gërëm ak maire bi tamit taxaw bi ak ñi mu àndal ñoom ñëpp tamit ñu teew vraiment moyens yi mu def yi à notre disposition pour que bi ak euh, euh, CLD bi mën a ñu mën ko tenir dans de très bonnes conditions ñu ngi siy gërëm monsieur le maire vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp lépp li nga xamante ni fi daal taataa nañ ko fi daal daañu ko bind da ngeen xam ni euh, màggal bi CLD bi moom mooy fondement bi lii ñuy jàpp fii dañ koy topp di renforcer rek au niveau départemental le préfet dina taxaw wax fa bu ñu toll au niveau régional le gouverneur tamit dina woote wax mais lépp boo xoolee rek si li ñuy liggéey tey jii moom mooy moom mooy base bi si lépp loolu lañuy sukkandiku pour que màggal bi nga xam ne bi moom la ñu fas yéene def at bii si 18 safar bi yàlla yóbbu ñu si jàmm ak salaam ñun ñëpp ñu fekk ko bu kenn wàññeeku jërë ngeen jëf donc. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, maa ngi dellu kon di leen nuyuwaat. ci turu Serigne Ousmane Mbacke mi nga xam ne mooy coordonnateur comité d'organisation du Grand Magal àndoon nag ñu seqal liggéey bi ci comité bi ñëwoon ñu fekke si CLD bi nga xam ne mooy réunion bu njëkk bi ñuy daje te monsieur sous-préfet di ko organiser ñuy profité ci occasion bi di ko wax di ko dalal di ko wax bismillah fii sa kër la fii sa dëkk la di la ñaanal tamit sunu boroom mission bi nga xam ne moom nga ñëw te mu tax laa jóg andi la ci dëkk bi nga am ci ay résultat yoo xam ne dana kawe sa njort di sant tamit monsieur le maire bi nga xam ne moo ñu dalal fii di sant mbooreem chef de service yi nga xam ne ñoom lañ seqaloon liggéey bi ak mbooleem mbootaay yi nga xam ne nekk nañ fi réunion bi nag yàgg na waaye kenn wanewut ak yàkkamti ndax dañoo xam importance bi nga xam ne réunion bi am na ko ni ko monsieur le sous-préfet waxee réunion bi mooy laltaayu beneen réunion boo xam ne dana am ba tax na jox nañ ko gëdd ji nga xam ne laaj na ko service yëpp yi nga xam ne tamit jàpp nañ ne mbirum màggal gi yitteel na leen daje nañ euh, weccoo nañ ay xalaat li ko tàmbalee ci sécurité police gendarmerie saper pompier ñoom ñëpp ku ci nekk wax na li mu liggéeyoon daaw ak li mu yéene lim ci yónnee dolli ren ak jafe-jafe yoo xam ne amoon nañ ko ñu waxtaan ko waxtaane ko ngir jéem a trouver ay solution waa santé ak hygiène ñoom tamit wax nañ li nga xam ne moom lañ yéenee màggal ren naka noonu waa hydraulique ñoom tamit xam nañ ne màggal ak affluence bi muy am nit ñi ni ñuy baree lu gën a bari day am jafe-jafe ndox waaye waxtaan nañ xalaat nañ ne ñi nga xam ne mbirum ndox mi ñoo ko seq buñ toogee ànd waxtaan ay solution dana am waa Senelec ñoom tamit wax nañ seen niñ jàppe màggel liggéey yi ñu fas yéene dolli ci liñ doon def xamal nañ ñu sax ne am na note boo xam ne génn na statut bu Touba Sénélec bu Touba nga xam ne dañ ko daay yàgg a jàmbat euh, ndax agent agent agence commerciale rek la woon euh, nee nañ jàpp nañ ne ñu ngi ci yoonu daal danañ changer statut boobu mën naa nekk service bala moo yàgg loolu ñu ci rafet njort ba tey jàpp ne su loolu amee jafe-jafe yoo xam ne amoon na euh, yu bari dana wàññeeku. assainissement ñoom tamit déglu nañ leen xam naa waa ONAS nag tey ñoom amuñ ku leen représenté waaye jàpp nañ ne réunion yi di ñëw danañ dikk wax ñu ñoom tamit luñ jàpp a liggéeyee UCG ñoom nekkoon nañ fi jot nañ ñoo leeral yeneen service lu mel ni Sonatel Eaux et Forêts commerce Ageroute action sociale AEMO ba ci presse ñoom ñëpp ku ci nekk daal wax ngañu ñu yéene ji nga xam ne am nga ko ak feddali gi nga feddali sa laxasaay ngir màggal gii ñu jëm doon màggal goo xam ne dana réussir ci plan yëpp ngir bañ a gën a guddal daanaka loolu rek moo moo doonoon wax ji xanaa ñuy dollee fàttali dool ñu doolee sant mën naa nekk sax lii laa waroon njëkke waaye ma mujjee ko mu Mbacke Fall mi nga xam ne moo nekkoon sous préfet te yàlla dogal ñu daan ànd ak moom liggéey bi mu dem feneen di fa liggéey di fa àggale liggéeyam ñu ngi koy sant bu baax a baax ci disponibilité am ak uh, yitteem joo xam ne yitte woon nañ ko màggal naka doon tamit loola rek lañuy ñuy séentu la ñuy séentu sax ëpp loo ci loolu uh, man Mansour Diallo mi nga xam ne moo ñëw di ànd ak ñun ci liggéey bi li ñaanal sunu sëriñ nga xam ne moom la ñuy seet see moom la ñuy xoole sëriñ Touba muy sëriñ Muntaxa ak mbooleem mbokk yi ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal ak fanam wéral ak wéral yaramam ba lépp li nga xam ne yéene na ko mu àggale ko lii mooy màggalam ku njëkk goo xam ne moom tamit ci ak xilaafaam ñu ngi koy ñaanal moom tamit réussite boo xam ne masta am mu am ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp